ñu daal di dem directement rek ci li nga xam moo di masala ku jéggi moom di ñu koy daal di jéggal rek ba beneen yoon ndax nag temps bee ñu xoj oustaz sujet yi bëri kii question yu bëri na nag oustaz tuwaar fa kàlla macha allah oustaz kii euh, soxna la si soxna si dafay dafa am boru koor léegi di ko fay mais ci fay bi dafa tàggoo dafa tàgguwul jëkkër ji maanaam avertir ko ne ko demee damay woor mu xëy rek woor léegi jëkkër ji soxla ko ci bëccëgu yoor yooru koor gi léegi bëgg a bëgg a moom léegi ci noonu la ko forcé nag ba sëy ak moom léegi ñu ne ndax jëkkat yi comme la fait que moo moo dogal moo moo yàq kooru ndaw si ndax moom moo am bàkkaar bi wala ak ak ak yan àtte la la la kii di teg ci moom. waaw tabarakallah macha allah soxna Didi euh, mu ngi mel nag ñu ngi waajal euh, shahru ramadan al mubarak mhm. di weeru koor mhm. yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm mhm. ñu fekkee ko ak jàmm macha allah at yu bare bare bare bare bi jaay rasulullah alayhi salaatu wasalaam xam nga am na loo xamante ni nit foog mu xam ko bayasan maanaam liy farata ci yow ak liy sunna ci yow ak li ñu sopp ci yow mm-hmm. moo tax diggante jëkkër ak jabar mm-hmm. complicité yi ci war a nekk moo war a bari mm-hmm. maanaam sa programme mu boroom kër danga ko war a xam moom it moo xam sa programme xam nga ki nga xam te dafa am boru koor daf ko a fay wala ñi am boru koor maa ngi def appel ci ñoom la ñu profité ñu fay seen i boru koor ndax koor gaa ngi ñu aj ba tey mhm. feek fayoo say boru koor rek sa koor ñu ngi ko aj ba tey eggul soo ko defee dafa am loo xamante ni taxawaay la boo xam ne didi mhm. boo am solo la yow da am boru koor nga war koo fay mhm. maanaam nga toog ba benn bis rek nga xëy xëy woor pour fay say boru koor bor yooyu ngay fay day farata ci yow bu teg teggeekuwul ci yow bokk ca kutiba aleykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laalakum tattaqun fanweeri fan yooyu obligation la di di da ko war a fay ku ne xam na ni jigéen bayasan yàlla mayu ko sens mu mën a wóor rawatina ñi toll ci di gis mbërëg ñu baal ma ñu ci toll di ko gis ñu war woor weeru yëpp ba mu jeex te duñ ko ci gis dañ gis ñu am boru ñeenti fan gis ñu am boru juróomi fan lu mu ci mën a doon da koo war a fay jëkkër ji rek def na penalty bu rëy rëy rëy parce que soxna si li muy fay nekkul naafila waaye moom farata lay fay moom yaa ngi dégg soxna si li muy fay bàyyi bu fekkee jullit nga sa soxna ni la carrément yow kat damay fay samay boru koor rikk waaye la rafet te jekk mooy nga bàyyi ko mu fay ay weeru kooram yow bu doonte la jëkkëram nga bàyyil xel ni kii li muy fay ndeem soxna si nag muudu sew sow bi xam nga mooy lan ndax soxna si wax na dëgg sew sew bi jëlee rek mooy ndax soxna si wax na dëgg waaye comme nee na la boru koor lay fay Ah, waaw ci mu fay. ah dëgg-dëgg nag Moodu. vraiment xaa dina ah? dëgg sax. Hmm? Hmm? Hmm? fay dem nga bay fay fay du wees. benn sayit jaamu yàlla la ñuy na ko wax. waaw ginnaaw fay du wees soxla na jox ko bu bu subaa nga fay ginnaaw da fay rek. ndax nee nañ la léegi nga si am. tàmbali ba pare tàmbali na woor. ba pare. waaw léegi xaa ndogu doom. waa waaye ñoom ñoom. waa ji na xaar waa ji dafa war a wajaas dafa war a wajaas borom kër tiyaaba la ci am. itaali la jëm su ko jëkkëram soxlaa dafa ko jox Italie la jëm Amadou. Ah, ah. ñoom ñoo ko wax de. Hmm? ñoo ne eh, jigéen problème bi nekk yow nooy nekkee sa jabar mu fas yéene woor suba te doo ko xam. waaw ah, nekkuma am nga gan la. waaw xam nga na ñoo problème xuloo bu bañ ko koo wax bañ ko wax dara ñaar sax mën naa war wooram saa bu amee ñaar nag mu xëy rek war wooram te boppam bañ ko wax waa ji bëgg ba fekk dafa woor dama woor ginnaaw na ko na ko dagg après waa ji des ak borom mu ginnaaw day fay daal na bàyyi pare mu fay ndaw si yéene mat na waaw ndaw si yéene mat na amul ci bàkkaar déet amul ci bàkkaar mais amul ci bàkkaar ndax waa ji dogloo na ko est-ce que yaa ngi may déglu Baye Assane amul ci bàkkaar ndax jëkkëram dogloo ko def na lu ko neex su ko neexee day continuer kooram mais après dina fayaat bis boobu bu ko neexee tam mu dagg ko fa waaye li am solo laa lay wax li am solo mooy waa ji ci boppam moo desee mat yow sa soxna li mu la woo mooy dala woo ci ni damay fay sama booru koor jaamu bu fekkente ni weeru kooru euh, boru farata la sa jëkkër amul benn droit ci yow ndax farata ngay fay na leer ci loolu ci charia waaye dafa war na tukki dama te bu demee ban at lay ñëwaat ma mën na nekk ma yooyu yëpp xalaat na bu fekkee c'est sama sëriñ daal ne yéen a ngi may déglu. kuy fay sa boru ni ko jëkkëram soxlaa nii fekk moom li muy fay du naafila. Mm. bu fekkonte woon ni naafila la. am na lu ca sariya wax naafila moom bu dee yow la neex rek nga xëy xëy rek di woor kooru naafila waaw sa borom kër bu ko neexee heure bu ko neex mën na laa moo ko neexee mu dagg loolu borom këram na la woon ah. yaa ngi ni balaa koor gi ñëw la neex nga koy fay ah. ginnaaw dem la neex nag bis bi ah. sa na jox ko bu subaa nga def bis déglul nag soxla foofu moo laa na suñu digganteeg yàlla. Hmm. bu ñu ci dugal doom. Hmm. bu ñu ci dugal jabar. bu ñu ci dugal jëkkër. bu ñu ci dugal kenn. dégg nga wax bi askan wax bi toon la waaja bu nekkee lu sax wax bu nekkee dafa nekk ci kooru farata. kay na lànk. waru ko nangu léegi nag bu waa ji insisté waaw yow boo bañee alaaji waaw bu waa ñu ne jëkkëram damay dugal benn question tey yow nit ki boo amee jëkkër nga nekk ci biir koor waa ji ak caay dikkal ko bëgg a waa xaaral rek waa xaaral rek waa non d'accord <laughs> waa ji soxla la waaw waa ji soxla la ma détere naa moom ay caay-caay soxla la ci biir weeru koor yow da ngaa war a ndax da ngaa woor ah. xanaa du jaamu yàlla te boo gisee da ngay kafaara waaw bien sûr ah, kay boo gisee da ngaa war a lànk dinañ si ñëw mooy karam mooy sëy lu ko gën a gaaw ko gën jaamu yàlla amul. waaw yore de say jaamu yàlla dafay wax keroog de. waaw mais dina ba ngay pare. waaw oustaz waa léegi waa léegi waa léegi waa léegi sëy mu nekk même bu nekk tuyaaba nekk jaamu yàlla gënul foor julli. ah oustaz waaw rek man yow laay waxal gënul foor foor waaw bu fekkee loolu kon yow boo jàppee boo war a dem taxawal sa waxtu julli. xaw ma lu ma wax sa waay commencé da ngaa war a ba julli ga dem non ah Didi yow dama koy wax Didi. nga xam ne Didi tiyaaba la waaw ak ah, farata ah, ah, jaamu yàlla waaye du farata moo gën a xam li ngay wax. doo comprendre moo a xam li ngay wax. yow xam nga li may wax dara. jaamu yàlla la waaye du farata de. jaamu yàlla la. doo fa boo koy def dañ la ciy bindal tiyaaba. lu ma la ko wax. waaw tey laa la ko gën a waxaat. yaa ngi dégg. Hmm. waaye nag julli moom moom day seef. day farata. doo pare julli koor day farata wutal heure sëy na utaluñ ko wér xam nga ci bu nekkoon loolu aju màkk sax oustaz aju màkk beneen bi sa soxna aju. waaw mais dafa lay dafa lay aj gi bu ma. Maka naka ngeen wax de. waxtu wax ne ba ba sëy moom waxtu. heure bu la neexee wax sa diggante ak sa soxna la. waaw mais ma lay leeral rek ni didi. Mhm. pour masala bi ni ki ni kii seetaan comprendre. Mhm. na xam ni soxna soosu jëkkëram tooñ na li mu def moom moom soxna si moo nekk ci dëgg. Mhm. da doon fay kooru naafi la farata. du kooru naafi la kooru farata la doon fay. loolu ku góor gi rafet bu dee nag. dinaa gis jéeg ju ci profité de. gis ah, ah, su dee xuloo xam nga am nga loo duñu sax. nee nga di suuf est ce que ah, buñu jàppante waaw bu fekkee ne dañoo jàppante nag nga def yëf yi triant loolu sa diggante ak sa borom la waaw da ngaa xañ sa bopp sa borom kër sa boobu ngay la di taxaw ñu tegal la lal ci digg safara ko ñemee wax ñu bari dana ci ménage chambre à leen chambre am na loo xamante ni mënoo fexe xol safara moom nit nit ay jàpp boppam nit ay coppax boppam. dugal ko ah, ca waaw naa fi na na leer tàgguwoo sa jëkkër. Mhm. fu mu ko neex na la paat. dégg nga boo ko tàgguwul kon kay wax nga wax. kooru naasi la kooru fay googu ah kooru naasi la d'accord. daa war suba damay war mais xam tàggoo suba damay war. kooru naasi la naa la ko nga ne waa wax de. laaj naa xanaa wax ak France la moom xam ne day xëy woo. dawal la nee na bu kooru naasi la daal laa wax. comme ça mu muñ. déedéet kooru naasi la daal boo ko defee te tàggoo sa borom kër mm. sa borom kër am na droit fekk fa heure bu la neex fu mu ko neex fa fekk nga te boobaa l'islam nee na la daggal koor gi ànd ak sa borom kër d'accord waaw l'islam nee na la même bu nekkoon émission daggal koor gi ànd ak sa jëkkër bu dee koor waafi la ah, nee na fu mu ko fekk fu mu la fekk <laughs> jëkkëral sa jëkkër ah. fu neex am na droit ci yow trésor plateau yeeg fépp si. plateau ba dama la bu dee sa jëkkër am na fu ko neex am na droit ci am na yoo xam ne sib nañ ko rafetul. voilà ñaaw na. dag araamul ci yow de ñëpp toog nga teew ak sa soxna ngeen nekk ne le araamul de waaye sib nañ ko rafetul jekkul maa